sant yàlla sant yàlla bu baax sant yàlla kese sant ñu ngi sant yàlla bu baax lépp yàlla kese waaw. ma dëkk si eh, Diourbel. Diourbel kër gu mag. ma Serigne. Serigne Al Hadj Niang. jàmm ak ak mu yàgg fee. tey boo doon digal tey say morom tey si bés bu mel nii tey loo leen di wax. gën a jàng rek gëm seen bopp. Hmm. waaw loolu kese la. Euh, Cheikh Abdou Malick mi nga xamante ne moom moo jiite tey Pire Ibrahim bi. 10 euh, millions tey fas yéene dem EO ji Diourbel ban kàddu rek moom nga am tey pour jox ko sa mbokk yi si Cheikh Abdou Malick li mu def tey. kanaa ñu ñaanal ko mu mu gën man li muy def ñaanal ko yàlla rek loolu rek leen si ñaanal ko yàlla bu baax incha allah dana baax. kontaan ko bu baax dal sant yàlla bu baax kontaan si mom kontaan si gars yu mel ni ñoom ñëpp incha allah. sa morom yi nga ko seqatoon tey nga raw leen tey ban kàddu nga am tey pour jox len ko. di di leen wax ne musaabaqa moo demee noonu maanaam bu ñuy def musaabaqa moom duun ne ñëpp mën a raw faaw am ñu raw am ñu si topp waaye ñin ñin ñëw final ñëpp jàmbaar leen ñëpp ku génn ku génnul yëpp jàmbaar nga loolu kese la. Euh, ko ma loo ñaanal sa sëriñ tey mu yar la tey ba nga egg si fii nii ak sa yaay sa papa tey lan ñaanal yàlla ñoom it. jàmm ndax lépp si ñoom la bàyyeekoo jàmm yal na yàlla defal tawfiq bu baax. ñaata an nga am. ñaata at nga am. 16. 16 ans. 16 ans nga am. waaw daal bu baax a baax. kontaan naa bu baax macha allah mujj gi mooy lan. mooy sant rek sant mooy kàddu gu mujj sant yàlla baax. El Hadj Malick Ka. noonu Mame Baye El Hadj